salaam jàmm ku mbedd nigas baa ngi nuyoo leemaa ku mëj wal waa dégg ko fay ma is booy ji ji jili der ay kay booy Grand Yoff ay kay Messi ay kay Take ay kay booy jinne sama gars maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission seen sama game sur votre télévision Equivox TV tey nag Ada Kanibal lañ seet Ada Kanibal the gat MC moom lañ seet fas yéene waxtaan ak moom léegi léegi dafa génnee benn projet bu nice tuddee ko Superman ku wét xam sa bopp dinañ ci dugg léegi léegi sama gars yi mais avant loolu ñu jox ko mu nuyoo après ñu soogay dugg ci waxtaan bi Mr Ada naka mu. salaamaaleykum jëli na def salaamaaleykum Equivox TV salaamaaleykum Galsen Game. Galsen sama game Galsen sama game man pour ma sama game nga wax sax quoi. <laughs> yee noonu la demee yee Ada da nga benn benn mixtape bu nice euh, Superman ku wét xam mais avant ñuy ñëw ci Superman damay dugg ak yow ci Ada Max. Adamaxi mu nekk benn projet bu nice eh, même pas deux ans nga joxaat ñu leneen muy mixtape mixtape bi tudd eh, ku wet xam. waaw ku wet xam sa bopp la tudd en référence à premier albumu Rapadio bi. Mm-hmm. Eh, Adamaxi dañ ko génne trois ans après suma jumul moins de trois ans je sais pas. Mm-hmm. mais lii sama sama kii la woon quoi moo nekkoon sama sama. sama xalaat nin dama xalaatoon génne maxi astafurlaa génne mixtape après door a génne si far yàlla bon samay conseil ne ma dama euh, surtout vorace ne ma ma génne maxi ba pare après door a def mixtape noonu laa ko étalé après incha allah normalement sama album solo moo si war a topp euh, loolu nga xam ne man la concerné quoi sama sama album solo la topp moo si war a topp mais instant bi nii am na beneen projet bu ma nekk boo xam ne album la mhm. mais du sama solo quoi am na solo yaa ngi ci beneen album mais du sa album solo kon mën nañ ne album Cannibal la. non non non non non non album benn collectif bu tudd 313 la. Mhm. incha allah dinañ si jot defaguñu benn yow yaay première. njëkk a yëg waaw yooyu yow laa njëkk njëkk a wax officiellement. Leuz diwaan ji Buzz MC Moos Goreen Calle Flam ji néew bi Mina la Voilée xam nga yenn gars yi quoi si biir ay ay Fodé Mass 36. xam nga macha allah daal. mais am na solo mais aada loolu noonu naka lay demee naka ngeen def ba teg loolu parce que ñi ngi tudd ñëpp ay ndaanaan lañu ngeen nar a def benn album ku signé loolu si ngeen ko si benn label wala dafa am benn promoteur bu ñëw proposé leen loolu. Mm, du promoteur ko en fait mais euh, dafa am benn benn structure bu taxaw bu tudd 313 tamit mhm. léegi ñun ñooy nekk. ñun ñooy euh, ñu ñooy porte drapeau yi si côté musique bi ko en fait parce que dafa am benn combat boo xam ni moom lañ yàgg a mëne te ñi ñi ma tudd ñëpp xam nga xam nga xam nga ne si loolu la ñuy dox si engagement si mm-hmm. rap social si rab fulla rap dëggantaan rab gaal seen si mm-hmm. loolu lañ nekk ko en fait mm-hmm. léegi loolu ñooñ ñoo boole ñoo booloo moom benn structure bu bu gën a mag loolu tam bu taxaw seen ginnaaw muy 313 bi xam nga incha allah noonu loolu yëpp après c'est que dama doon def annonce ne. <laughs> ñu ngi si mais affaire 313 moment. waaw sama waaj en temps et en heure en temps et en heure on sortira gën a wax lan mooy objectif bi luy objectifu album bi. Hmm. objectifu 313 si boppam parce que 313 en tant que entité. Hmm. moo gën a am solo fuuf que 313 en tant que groupe de rap. am na solo aada Kanibal kañ la ñuy xaar seen album dafa tas ñii na tas na ñii na tasul loo ñu si mën a wax pour ñuy déglu ak wala ñuy seetaan. ñu xam ndax Kanibal dafa tas wala tasul Vorace mi ngi fi yaa ngi fi. Mm. pourquoi pas album. non Kanibal du groupe buy tas quoi en <laughs> parce que avant Kanibal dañ doon ànd avant Kanibal quoi avant groupe de rab du ñu boole. ñun dañ doon ànd quoi en fait Kanibal boo leen la plupart temps da ngeen di foog ne deux personnes rek la man ak Vorace kese non mais du man ak Vorace kese Kanibal on est mm, sept. sept lañ mais ñaari ñooy rap quoi. mais yow Vorace la ñuy gis ngay rap. comme comme li ma la expliqué rek on est mais deux ñooy rab. loolu ba léegi euh, loolu ànd ba ànd ànd boo xam ne rab boolewuñ la quoi. ah ok que du cannibale dama koy wax si wax naa ko waxaat ko waxaat ko dama koy confirmer wax encore. Mhm. cannibale nekkul groupe buy tas. am na nag instant bi nii moom moo nekkatul ci rab bi. moom moo si nekkatul quoi à plein temps nii instant bi mu ngi si leneen quoi en man maay représentant Cannibal instant bi nii mais Cannibal en tant que groupe du groupe buy tas quoi am na solo hélas Cannibal en tant que groupe du groupe buy tas damay dugg ak moom ci album bu projet bu mu mujjee génne mixtape bi euh, Superman ku wet xam sa bopp aada Cannibal ñu dugg ci mixtape bi mixtape bi nag dafa bëri ay critique aada gars yi nee nañ mixtape bi nice na côté lyrics yi côté musical nice na mais li la gars yi di critique xaw ma ndax yegg si na si yow wala déet mooy côté mix yi bon loolu sa dépend en fait dépend si ku nekk ak sa dégg-dégg ak ni ngay c'est qu'en fait da xam leen moom gili mhm. c'est dafa am benn façon façon rabine mhm. jamono ji mhm. am benn façon rabine bu am am façon tëggin bit moom bit jamono ji rap galsen dafa am benn genre identité musicale bu ñu am si côté instrument. mooy tung tung tung tung tung tung tung tung tung seen affaire boobu noonu. du ma def loolu quoi en fait léegi kuy xaar lu ma def loolu ku ku ku jàpp ne loolu mooy musique bu bu baax. di xaar Ada Canewal def ko demal nga làmbi feneen man def ma loolu man classique laay def. classique quoi boom bap samay projet bokk boom bap laay def classique. loolu mooy phase musique côté musicale bi côté lyrics. nekkuma gaañaan boo xam dama farataal ego trip quoi en la farataalu ma ko du question mënu ma ko nag. Hmm. <laughs> mën naa ko nag. mais farataalu ma ko ko man je préfère plus concentrer samay texte ci samay message hmm. surtout loolu su ma naroon par exemple jël benn euh, man boo ko en tant que Ada Kanibal su ma naroon génne benn projet boo xam ne musique yooyu rek moo fi des. je hmm. préfère le fair a cappella boo ok bi fu mu toll. mixtape bi aada. waaw bon mix mixtape bi bon. mixtape woon rek quoi en fait. Mhm. nekkul affaire boo xam ne. crème vraiment satisfaire na la wala nga xam li nga si doon séntu. gis nga na ma en fait yoo xam ne <laughs> macha allah. Adam Max bi gars yi doon wax ne parce que boobu Adam Max moo gënoon ego trip. Mhm. gën a hip hop et tout ça. Mhm. xam nga loolu moo gën a accessible loolu la ñi gën a bëgg a dégg ay ego trip. ay sound yoo xam ne soxlawul benn niveau de réflexion bu sori bi nii. yu commercial quoi en fait. Mhm. Adam Maxi boo xoolee presque loolu la. Superman bi nag si carrément engagement cannibal 2010 quoi en fait. Mhm. état d'esprit boobu noonu moo nekk si. Superman dama si aborder ay thèmes politique yu dul jeex. ay thèmes social yu dul jeex ay thèmes spirituel yu dul jeex boo xoolee Superman bi ñaari ego trip la sur vingt deux titres. Mhm. ñaar xaw ma benn. non astafurlah benn ak genn wàll. Mhm. benn bi mooy Superman en tant que tell sound bi. Mhm. ego trip la ak benn couplet budul woon. Mhm, budul woon. vingt deux titres non vingt vingt vingt titres. benn ego ak genn wàll. ça veut dire que xam ma si di def si. si dimension yi gars yi di nekk woy ay musical ma non nekkuma sax si yooyu sama doxal si yooyu yee aada mais si biir projet bi dañ si dégg nga def si benn sound di ci classe animateur yi aada sa problème ak animateur yi lan la. non du classe du classe euh, ji. mais dégg nañ ko yow Ria sound boobu noonu. non xaar ma wax la du classe. c'est qu'en fait bis boo leen déggee ne aada classe na. c'est que doo leen wax naan doo si douter quoi man su may su ma demee bay classe nit su ma la tuddul ca commencement sound bi naa la tudd ci fin bi. Mhm. sa tour quoi dëggantaan. Mhm. li ma waxoon li ma mooy animateur yi mooy couplé son bi du baax la tudd. Mhm. daa am ay parties quoi en fait ay constat yu ma def si rap Galsen la. Mhm. ñi ma xanaa kon parce que première partie bi ñun la mooy rapport underground hardcore borom sikkim yi. waaw ñooñu laa wax xanaa man kon dama classe sama bopp. <laughs> non mais xam na nekk parce que non te ma sama bopp parce que loolu ñun la quoi. Mhm. maanaam ñun ni ñuy dundee ak par ak par rapport ak gel yi. gel yi fréquenté game bi quoi laay wax. deuxième partie bi ma wax animateurs yi ni ñuy dundoo par rapport ak gel yi troisième partie bi ma wax mooy mooy rab fragile bi noonu mhm. par rapport ak ñoom tam ni ñuy dundee par rapport ak gel yi mais du classe constat la lool du deñ moo am amul kenn ku mën a dindi man partie partie animateurs yi moom ma ci gën a intéressé mais aada waaw mais li nga wax si animateurs yi da nga ci wax loo xamante ni des fois da koy da koy gis quoi da koy dégg di ko gis mais aada dan ñu bëri dañ taxaw ne aada diw lay waxal ak diw ak diw parce que période boobu bi mu amee gis nañ ci ay animateurs yoo xam ne après seen i kii dafa commencé feeñ maanaam dañ leen commencé takkal ay gel yi def ay vidéo na man animateur bi def na ma lii animateur bi def na ma lii kan kan la yëg loolu non loolu am na am na fii no non déedéet non sincèrement wóor na yàlla moo tax may wax yëguma ko quoi mais waxuma benn animateur en particulier animateurs yi en général laay xanaa déggoo li ma la wax jili bu may wax ak nit en particulier dama lay tudd loo may def quest mais mais bañ a teg sama sang tegoo ko <laughs> j'en ai na à foutre mais sa problème ak Bouba léegi réglé wu na Bouba France non Bouba amoon problème ak moom mais dama gis ñaari tra def nga benn tra classe ko nga jëlaat ko boolewaat ko sa projet sa loolu mm, mais parce que parce que track ba bokkul woon fenn ma jël ko def ko moom amay gars yooyu yu ma doon laaj naa ma semble tax vidéo moo ma ne pourquoi ma koy vidéo bu waa dafa ñëw attaqué rap mm-hmm. te attaque bi ñu bëri ni ngi naan ay non rap Galsen rap polonais loolu c'est pas important ay rap polonais loolu loolu du dara quoi en fait mm-hmm. man man damay déglu rap haïtien rap chinois rap damay déglu rab quoi rap laay mm-hmm. déglu damay damay loqati ji rap fa mu nekk vrai rap laa wax nag bu baa nañ ma rap ne man yëngalu ko quoi en léegi kon lu tax nga single ko. exactement dafa def benn vidéo Instagram ne li ma wax moo ko wax ku mu metti qu'il se mette un gros coof dans le cul moo fa wax. Ah, moo waral sound bi. waaw exactement parce que bu demee ba affaire de réewande lay nekk. Mhm. bon affaire de rap. Mhm. nañ ko ñu rap quoi en léegi foofu la ma nit ñu bëri déggee may rap France ñu naan est-ce que est affaire yooyu mais bon comme comme li ma wax rek da ngay mën rab da ngay mën par exemple boo demee bay dénigrer benn affaire. par exemple trap. Mhm. man j'aime du ma ne du ma ne damay trap quoi en mhm. mais mën naa ko. ok su ma neexoon may attaqué trap du ma ko def sax quoi. amalu ma benn njëriñ quoi mhm. may attaqué trap du ma ko déglu du ko xam c'est pas mon truc quoi daal nekk sama délire. Mhm. mais su ma demoon ba koy boo demee ba koy dénigrer da nga koy mën quoi. am na solo. c'est comme par exemple boo demee bay dénigrer tam rap classique nga nekk euh, benn benn. booy nouvelle génération ngay dénigrer rap classique mm-hmm. wala nga nekk benn màgget di booy booylu mm-hmm. da ngay mën rap classique ba pare door ko door boo demee bay bay bay ñaxtu si benn affaire na fekk nga mën ko quoi. am na solo loolu la quoi mais bon c'est pas un problème loolu. man la Ada Kanibal de Gat MC. Mm-hmm. Gat MC bu Sénégal s'il vous plaît foo ko teg. non Gat MC dañ ma ko maa ko wax mais Gat MC dañ ma ko tuddee saa tuddee ma sama bopp de. fii ñaata rapport ñoo lañ fi lañ la fi public bi tuddee tur man public bi moom tuddee God MC ci saay fa yi ah, xanaa kon du looloo taxoon nga ni ñett gaa yu ma boole loon danu daw. si ban loo si fan la si benn saayfa bi nga def si. ah bon non saayfa boobu non mën naa la wax kan. ne xanaa déggoo li ma wax ñan ak ñan yow. xanaa déggoo li ma su fekkee lu ma wax la. waaw dama siy jaaraat dama siy jaaraat. <laughs> benn problème lool <laughs> am na meef moo defoon benn saayfa. Uh-huh. ne buxu la. Mhm. Barrio. Mhm. Rex Rex euh, buxu. Rex non non. waaw xaaral buxu la Pëpësa Rex tii ak Barrio suma jumul je sais pas daal. soit Barrio soit buxu daal kenn suñu ñaar. Mhm. ma gis mu annoncé ma ne bon fii ay ndaanaan na fi nekk. la mais i naga baa ma ñëw bokk ko en mm-hmm. parce que man yow xam nga ne samay morom laay war yow xam nga la mais yow ñoo ñooy sa morom <laughs> ñoo ñooy samay morom quoi ñoo bokk génération ñoo bokk presque ñoo bokk presque jaar-jaar ci rap ñooñu sama génération mooy deuxième génération troisième génération ñooñu ko mm-hmm. ma ne bon comme que affaire de génération la xaama ñoo bokk mu ñëw box saa fa ñëw ñu ne ma kii ne ma dafa feebar ki dafa gàmm lan. ah moo tax nga ni dana <laughs> daw a ah, ma dugal ko ci free freestyle man MC laa. mais ñoom ñun réagir. loolu lu lijjanti ma ko sax <laughs> sama yoon seen nekk. mais Ada Kanibal ak gars yi dafa mel ni neexul quoi ku ci mel ni Rex ku ci mel ni Peupeuse ku ci mel ni yeneen ak gars yi. non non amu problème si kenn ah. Mhm. amu si problème kenn si ñoom ñoom ñaar ñoom ñoom trois ñëpp amu si problème kenn. mais affaire de hip hop la quoi xam nga. Mhm. dañu wax saay fa man ne meef damay bokk saay saay fa bokk ma si woon man maa ne meef dugal ma si biir. publication Facebook laa gis a ne meef damay bokk si biir. meef ne ma non kenn damay bokk. aada aada yow lu tax lu tax lu tax aada yow. maanaam tey ngay bëgg di bokk si genre affaire yi nga xamante ne day bëri biir wi. pour dem wane fa lan la loo fa bëgg a wane lan. dama bëgg sama moroom yi xam ne maa ngi daa xarab ñoom ñëpp. yaa daa xarab pëpësa. ñoom ñëpp laa wax de. rek si. sama moroom yëpp. yaa leen daa xarab. ñëpp xanaa dégg sama morom xam ñan laa fi bàyyi. Mhm. booy new generation bi ak grand mais say morom boo ko waxee nag si hip hop bu nu waxee morom aada cannibal da ngay indi rex da ngay indi Popeza da ngay indi Baryonyx da ngay indi yeneen yeneen gars yi comme ay ñu meuse ak yooyu noonu mais aada tey bu taxawee ne moo dàq rab ñooñu am na ñoo xam dañuy bañ aada. non mais mais man ku taxaw ne yaa ma dàq rab damay bañ suma ma taxaw ne maa dàq rab da ngay war a bañ pour lan doo bañ. seen normal nga bañ. mais su ma bëggoon tëgg benn affaire aada cannibal benn sayfa boole koog rek si wala ku mel ni pëpësa aada pare na. luy sayfa mooy lan man batal laa wax nga ma wax. batal def ko entrée. batal la ku la nekk la neex. bu ma jëloon benn booy underground ku si mel ni Istala. non xanaa dëgg la ma wax boy laa fi bàyyi. parce que duñ samay morom seen grand la mhm. ak samay grand. nga fi bàyyi. samay grand mooy ay ñoom xumaan ñoom. grand yi quoi. Matador xumaan ko booy ak grand yi nga fi bàyyi. waaw ah, sama morom si diggante bi ku la si neex A ba Z. Mhm. ku la si neex. tëggal ko battle ne ko aada laa la jox battle vingt cinq minutes vingt cinq minutes en live mu bind ma bind ñëw daje dafa ko bagaas. nga jaxase ko. ku mënti doon. hélas lu neex na aada Kanibal. su ma nee waxuma ak rek. Mhm. waxuma moom su may wax ak nit dama lay wax quoi. ku mënti doon. si rab gaal seen boo ma songee batal ma dafa la bagage kum mënti doon. bàyyiwoo kenn. sauf booy yi ak grand yi. ok ok mais aada man su ma bëggoon lenn quoi xam naa ne da ngaa mbedde is mbedde donte nag nee nga bàyyi nga fi booy yi mais comme booy yi mbedde yi quoi ma jël benn booy bu mbedd ku ci mel ni is wala ku ci mel ni naar bi wala benn booy boole kook aada cannibal pour meeg moo niin. xanaa déggoo li ma la wax yow. ok waaw ba tey léegi nan avant. <laughs> booy gis nga dama ne booy yi quoi. Mhm. grand yi ma ne grand yi samay morom samay morom lañ. mu bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu rap bu bëggee ñu loolu neex quoi. mais aada yow dafa mel ni gaañ bu tàng saan nga parce que tout le temps da ngay expliquer bu bëggee ñu raak bu bëggee ñu rap bu bëggee ñu. non du ay gaañ non non yow xam nga ne yow jili. non mais tamit xam nga xam nga ma. Mhm. xam nga ma quoi. xam nga ne nekkuma gaañ bu tàng saan. Mhm. mais dafa am benn boo xam ne mooy rap quoi. Mhm. man MC laa. Mhm. amul benn MC sama morom bu may woo ci MC yi may ut ay excuse amul. ok kum ti doon laa la wax expliquer ko mais aada hip hop bi dafa am clan wala amul clan. comme lan clan ndax yow yëg nga loolu wala yëgoo ko. hip hop dafa mës a may clan loolu c'est normal et puis c'est normal dafa am clan. Mhm. c'est normal quoi en fait. ay lobby ay clan loolu c'est normal en parce que ku nekk am na foo far quoi. Mm. man mii di wax ak yow am na fu ma far. am na ay nit yoo xam par exemple bu ñu wootee bu ma ko bu ñu ma ko yëgalee bu ñu ma ko yëgalul damay dem. ok am na ñoo xam ne bu ñu tëggoon conseil fii sama buntu gaal du ma génn. doo génn. loolu du affaire de loolu du lu extraordinaire quoi. Mhm. mais mais aada Kanibal ni nga mënee rab ba Sénégal yëpp nangu ko koo ci wax mu ne aada dafa mën rab mais lan la ciy teg respect respect am na sa benn sound intro bi ngay naan respect fayul courant. nekk réel feesul biir respect du fay courant xaaral dinay mat. Mhm. nekk réel feesul biir respect du fay courant. Mhm. sama joma tax fu fekk tegee bool ma ne suur naa gaa yi dañuy fàtte parti boobu parti boobu moo gën a am importance ba sëb. am na solo Ada Coulibaly mais fu fekk tegee bool ma ne suur naa loolu mooy gën a am importance que nekk réel. Mhm. mais Ada nouvelle génération bi boo leen di xool booy di feesal ay salle. Mm. ñëpp taxaw te pourtant nouvelle génération yi booy si bari koo ci wax danaan la aada kanibal ndaanaan la te boo yooyu naan la ndaanaan ñoom ñooy feesal ay saal boobu ba léegi ñuy xaar aada kanibal jël saal bu mag feesal ko kabana këlëb nga ni mujjee yóbbu si saal te bi nga ko yóbbee dafa fees gars yi boobu ba léegi ñu ngi xaar loolu très jël saal yu mag yi booy di jël aada lan la luy problème bi. mag xanaa dégg li ma wax man man xooluma lan la booy c'est que. non mais aada tamit hip hop da nga ciy meeg moo ni tamit aada boo ci nekkee dafa am loo ciy wut. ah mais la dëgg la bu baax sax maa ko siy wut. maa ngi si am li ma si war a am li ma jàpp ne maa ko si war a am maa ko si am xëccoo ma kenn man en fait sama yoon laa nekk dafa mission bu ma daam lu ma tax a jóg quoi. Mhm. dafa lu ma tax a jóg. Mhm. tant maa ngi si yoon boobu noonu. Mhm. li li si des ñi si des li ñuy am li ñuy lijjanti vraiment lijjanti wu ma ko loolu loolu da def da lay def nit ku soxor ko après. booy xool nit ki chaque jour kii lan la am kii lan def nit ku soxor la lay nekk. booy di feesal saal mais good for them saa yal na yàlla yal na yokk quoi en fait. loo wax ci nouvelle génération bi ban booy moo la si marqué. booy non ñi ma ci marqué bëri enfin marqué comme nan quoi am nañ. maanaam ban booy nga ciy déglu di gis sa bopp quoi kontaan. waaw à part ñi nga xam ne ñoo far. samay samay family la mooy ay esborap waa kawte stratégie bi quoi. Mhm. à part ñooñu nga xam ne is family mhm. am na si ay gars yoo xam ne vraiment su ma leen di déglu ñuy rap. daf may daf may yokk daf daf may yokk mbégte quoi daf may yokk esp daf may dolli yaakaar boog ci rap galsen day tax ma gën a am yaakaar ci rap galsen comme yan booy. ay xulyool absolu. Mhm. Euh, ay ndobin. Mhm. ay euh, su ma limee damay juum quoi. ngaa ko blend deep. Hmm, bon. wala booy yooyu. non du question booy yooyu sax mais am na ñeneen quoi. en fait ñoo xamante ni ñoom nga gën a fil. booy du question gën a fil. maanaam su ma leen di déglu dinaa gis ne. par exemple man mission bi ma nekk si rap mhm. Galsen mhm. am na ñu koo téye ko ay ñooñ laay wax ay ay ay Julio l'absolu surtout nag kooku dama koy wax parce que c'est un gars bu c'est un boy boo dafa il est hyper intelligent yeewu. la. am xam-xam. Mhm. ba taxaw fa mu war a taxaw ko yooyu dafa loolu dafa dafa parce que boo xoolee rap gaasam booy jeunes ñu jeunes ñëpp aay ah. mhm, nga gis léegi jamono jii li li jafe mooy nga gis ku cuune sama génération li jafe mooy nga gis ku bon li muy def mhm. mais jamono jii ku lu jafe mooy nga gis cuune ko nga gi ngay rëbb cuune di ko seet di ko gis loolu moo jafe ko côté talent booy ils sont hyper talentueux mais dafa am benn affaire bu may reprocher yenn bi mooy seen manque d'engagement. Mhm. seen manque de de de de de de de. ancré dans la dans réalité sénégalaise bi nii quoi. maanaam li tax rap galsen nekk rap galsen. am na booy yu bëri bon loolu laa di reproché manque boobu nekk fa quoi. mais am na nag quand ñoo xam ne loolu mi ngi si ñoom. Ada di nga defaat dix ans si hip hop. yam li dégg daaj sa rakk fële na non question la ba xam di nga si defaat dix ans. non di saa sama album solo buy génn may bàyyi. sa album solo kañ lay génn. xamaguma nag. mais bu génnee da nga bàyyi génn may bàyyi. yam li dégg daaj sa ra mi ngi def lu nice. woo xanaa boo paree moom ngay. moom laay lan ménager. non ménager wu ma kenn sax <laughs> ménager wu ma kenn euh, bon booy mi ngi rab abe ah mi ngi rab daal mi ngi rab gars yi ñu ngi naan mi ngi nice ma ne waa d'accord ok. ok c'est bon <laughs> aada lu ñu cërale woon ci waxtu mat na. Euh, Galsen sama game la woon Jili Der ak aada Kanibal ñu ñëw ba wakaam fekk fii si huut bi daaj. def ko yëfu mbedd parce que hip lii lañ ko xamee hip hop musique mbedd la sama gars bu buñ di fàtte aspect bii nii da ciy baax boo fekkee jee MC jaru ngeen di dugg si saal parce que loolu du dëgg quoi génn leen fi nga eh, xamante ni foofu lay eh. non am na boo yoo xamante ni am na si boo yoo xamante ni buñ la yóbbee si saal mun nga ko nangu mais tey aada cannibal bi nga xamante ni moom mbedd mi lay prôné aada cannibal dafa underground bu nu ñëwee dañuy def ak moom émission bu underground mais tey bu nu demoon seeti benn booy bi nga xamante ni moom lu muy ñoddi mooy affaire de Almadies laa dëkk affaire de Sacré Cœur fan ñoom fu ko bëgg a defee mais aada underground la moo tax ñu jël émission bi dóor ko ci mbedd bi aada dernier mot yi. waaw dernier mot bi mooy 313 euh, 313. Mm-hmm. na si gars yi bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. te tamit concert Nit Doff show of the year incha na gars yi ñëw def bomb feesal ko. mais aada dégg naa ren da dem Paris. incha allah. mais kon yaa ngi soogay génn. waaw génn kaaw waaw vraiment. mais noo ko noo ko yëgee bi la ko annoncé. <laughs> saa yi man li ma yëngal bëriwul la ji. <laughs> non mais kontaan nga xanaa. bien sûr mais xam nga damay dem France comme ni may demee concert feneen ak feneen en fait li ma yow xam nga li may yóbbu concert. Mhm. loolu yóbbu France incha allah. yeah mais kon loolu. mbégte d'ailleurs 20 décembre stade Iba Mar Diop 29 décembre Paris Bellevilloise incha allah na gars yi ñëw. def hip hop rap galsen bu baax bi. am na solo ñu ngi koy bëggee bu baax a baax aada Kanibal lañ seet si woon fii wakaam respect si yëpp sama gars yi beneen yoon dinañ amaat beneen bandi respect di la jox rendez-vous vendredi incha allah jaajëf.